compagnie sénégalaise bu pétrole bu Petrosen dafa daal di annoncé arrivé benn unité flottante bu production ak it tamit stockage bu gaz ci bërëb entreprise bi di GTA foofe ci frontière bu Sénégal ak Mauritanie ci samedi ji fukki fan ak benn ci weeru mai atum 2024 loole nag gannaaw ba mu bawoo ci réewum Îles Canaries bu Las Palmas gannaaw juróom benn fan bi mu def ci wàllum voyage loole nekk nag ab ouf de soulagement ci compagnie bi nga xamante ne moo ko doon xaar fii ci réew mi ñu fàttali ni FPSO dafa bokk ci élément essentiel yi nga xamante ne yooyu la ñu tëral ngir rek mun a produire gaz bi ci projet GTA bi ba tax na document bi di xamle ni bokk na it tamit jumtuwaay yi nga xamante ne yooyu la ñuy jëfandikoo ngir mën a def traitement bu njëkk ci gaz bi ci bërëb ba ngir rek mën ko séparer ak yeneen élément yu ci bokk ci diiru produit production boobu la yépp rawatina ci ndox bi naka noone ci jamono bi nga xamante ne moom la ñuy def traitement bu njëkk ci wàllum gaz bi traitement bu njëkk bi gaz bi dafay daal di traverser ay bërëb yu bëri ngir rek ñu mun ci def benn stabilisation waaye tamit conditionnement mi nga xamante ne moom mooy waral ngir production boobule mën a jaar yoon jamono ji gannaaw ba ñu gisee ni liggéey bi daanaka jeexal nañ ko ci lu tollu 92,5 pour cent nag activités yi nga xamante ne ñoom ñoo descendi dinañ ko completé ci biir ndox bi ci frontière bu Sénégal ak Mauritanie fi nga xamante ne FPSO dinañ ko mettre en service ngir rek mu mun a tàmbalee production bu gaz bi